en direct sur Dakarnet euh, dans votre émission li ma weesu tey comme ni ma leen ko waxee ñu dalal ndaanaan gu matan dalal Latir bi nga nekkee ci prison bi récemment avant ngay génn sa wayjur bu góor doon na la seet si bay ba defoon choc ba oto mbëkkoon ko ba tànk bi dam bi nga yëgee loolu ci biir prison bi lu mu la def. mais loolu kan moo leen ko wax. <laughs> Hmm? loolu daal. Eh, bi nga yëgee loolu lu mu def xam nga Dakar Net ak Axma. moom day def ay investigation moom day wër bu yaakaar ni damaa ñëw rek invité la dama wër ba am ay gëstu ci yow. bi nga yëgee ni góor gi mi ngi lay seet si ba oto mbëkk ko ci yoon bi ba tànk bi damm. choc boobu lu mu def. ci biir loolu soge na ma trop. mais nit da nangu lu yàlla dogal te sam papa tamit ku nangu dogal la. car moo ko mbëkk ba pare daw. car rapide moo ko mbëkk ba pare daw. Mhm. kon damay delluwaat encore di maanaam di jéggaluwaat ñi nga xamante ne ñooy parents détenus yi parce que man comme que man may ambassadeur des détenus kon lépp loo xamante ne bépp détenu man maay jël jéggalu bi di ko jéggalu ñi nga xamante ne ñooy suñu parents yi nga xamante ne ñooñ doon seet si biir kaso ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla wéral seen cër guddal seen fan sàmbal leen njaboot gi di leen wax ñu baal ñu àq parce que sa doom mbaa sa jarbaat mbaa sa jëkkër bu nekkee biir prison yow maanaam jaaxle bi ngay jaaxle xam nga waaw jaaxle bi ngay jaaxle ba tax na yow da ngay gis ñii dañuy jóge ba Tëngéej mhm. ñii di jóge ba Ndar mhm. pour ñëw prison cent mètres carrés pour xool seen doom wala seen jabar mhm. wala seen wala wala wala seen jëkkër kon métti na trop trop trop kon ñooñu balaa dara dañ leen dama leen di masawu coono waaw di leen wax ni bu ñu tàyyi parce que maanaam deret dafa foor te am na loo xamante ni maanaam tey jii euh, ki la gën a mën a génn ki gën a mën a génn ba pare delluwaat ci biir mooy ki nga xamante ni maanaam dafa nekk ci biir ñu négliger ko. kooku bu génnee day raakaaju. waaw mais yow mi nekk ci biir nga xool fi nga dëkk nu mu soree soit ba fi nga dëkk su mu jegee sax mais dafa am benn affaire boo xamante ni defet la maanaam defet bi mooy. yow munoo nekk ci town bi. Mm-hmm. di lëmbee. Mm-hmm. di def ay affaire di jël alalu jàmbur di agresser di dajji. Mm-hmm. te buñ la yóbbee prison amoo amoo xaalis boo jëlee avocat. mais booy nañ dellu si seen xel. kon ñu bàyyi. kon nañ bàyyi. pour muy leer xam nga ñun ñoo war a nekk bandi. doomu milliardaires yi ñoo war a nekk bandi. mais ñun doole yi bàyyi ñun bandi arrangé wu ñu. waruñu ko doon waruñu ko jéem a doon. parce que amuñu moyen boobu noonu. waaw fii da xool doomu baadolo bi moo fi sàcc pomme bi te ñu yóbbu ko kaso. doomu milliardaire bi rey nit trois mois ñu ne la bàyyi nañ ko. mais kon dañuy jël lépp rek teg ko ci loxo suñu borom. dëgg bu wér. Hmm. oui. Euh, Ngaaka Blindé. Hmm. mu mel ni fekk na la ci biir. Hmm. bi mu la ci biir bi mu génnee dafa def son tudd la ci. kon yaakaar naa ne Latir am na lu rëy lu mu defal Ngaaka sa relation ak Ngaaka Blindé ci biir prison bi nu mu demee. Euh, sama relation ak Ngaaka Blindé ni mu demee moom la demee kon ñeneen ñi rek man maanaam dama dama dama yàgg ci kaso bi man dama yàgg ci kaso bi maanaam euh, boo déggee ñu naan sept décembre sept décembre maanaam sept décembre sax man mun naa leen man maanaam maa leen fa njëkkoon maa leen njëkk ci kaso bi. ok waaw mais dafa am ñu ñuy jox néeg ak ñu ñu dul jox néeg boo mënul nekk espion. Mhm. munoo yor néeg. Mhm. te man jomm naa. yor néeg ba pare naan damay superviser nit te sama problème man doy ma mbubb ak tubéy mhm. mais dafa am ñoo xamante ne dañuy nekk foofu noonu di maanaam genre genre genre indicateur la ñuy doon. ci biir ci biir ci biir ci biir kaso bi. te ñooñu ñoom ñooy chaque jour ñoom ñooy créer feu. Mhm. parce que tey ji mun naa la teel benn rancune. Mhm. ma am sama benn xaritu garde. ma bàyyi la yow fi ngay tëdd. ma def fa ñaari paquetu yamba dem sama xaritu garde bi ne ko waaye sa waaye des dem ba léegi gaañ day yendoo di tox ok. léegi kooku noonu bu àndee ay élément am ñëw sa ngay ñaay directement la jëm moom moo ko génneew la ci. ok fekk ñoom ñoo créé loolu. ok ki ñuy fay pour mu garder la. moom bu mënatul garde bu mu fay keneen mu koy gardeel. kaso saa bu rek loolu moo ko toj. d'accord donc yaa ngi koy dégg mutinerie bi campagne la. Mhm. ay affaire de xaw ma espion bi doon kii xaw ma lan ak lan. Mhm. mais loolu la. lan ngaa ko fekkee ci biir prison bi. waaw man bi man ngaa ko fekkee ci biir prison bi maanaam dama ko dalal kenn nu may dalalee ñëpp man du ma seede chambre du ma homme de chambre. ok mais dama yàgg ci néeg bi. ok njëkk fa seede chambre njëkk fa homme de chambre. ok amay déglu baax a baax ba ngaa ko ñëwee. waaw dama ñëw gis naa xam naa ne ngaaka la ma bàyyi ko bu mu waxtaan ak gars yi mu ñëw toog mën na koy waaw sama waa ji lan la mu expliquer ay problème am mais instant wu noonu jaaxale na tiit na parce que xamul loolu xamu ko ndeysaan. léegi man mi ko xam fallait que ma yiir ko tette ko dalal ko mu dal. Mm-hmm. si laa ko ne eh, bul jooy man mi di wax def naa fi six ans mu xoolaat ma. ma ne ko def naa fi six ans te ba léegi man la su may musumaa gis jant bi yow sa problème du problème mu dara da ngay ñibbi bientôt dalal sa xel. Mm-hmm. xam nga ci lañu commencé nag. Mm-hmm. muy ñëw xam nga ñuy toog bëggee. bët waaw yàlla nu mu koy suturaalee mu dem yoonam. d'accord